Bonjour, comment jërë ngeen jëf ñu dikkat ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum wér-gi-yaram beneen yoon ak xorompole xorompole nga xamee ne dafa baax lool ci suñu wàllum wér-gi-yaram rawatina lépp loo xam ne jëm na ci dënn bi ndax bu fekkee ne yaa ngi amee xol buy metti del jël li nga xam ne moo di xorompole di ko boole ak li nga ne moo di meew dina ciy baax ne tamit da nga amee li nga xam ne moo di asma del jël xorompole bi di ko boole meew bi meew bi wala café bi rek lu la ci gën a jubóo nga jël ko na ciy saf rek boo ko dee jël dina ci baax bu fekkee ne tamit da nga amee euh, problème foie jël li nga xam ne moo di euh, xorompole bi di ko boole xam ne moo di café gi wala meew da nga amee li nga da nga amee li nga xam ne moo di euh, sëqat sëqat boobu maanaam ñu naan dee naan xorom dina ci baax bu fekkee ne tamit da nga amee suukar bu yéeg del jël li nga xam ne moo di xorom euh, di koy naan loolu baax na ci ba ci ñi nga xam ne seen sax borom kër yi nga xam ne dañuy am jafe-jafe su seen wàllum kër dañ naan xorom bokk na ci li nga xam si ne sax dafay dindi ay jafe-jafe kon nag njëriñul xorompole nekk loo xam si ne bëri na ay njëriñ lool bu dee ci ay jafe-jafe bu dee tamit ci wàllum dënd bi tamit dañ naan bëri na ci njëriñ lool kon jërë ngeen jëf mbokk ñuy topp ci 24actu point com loolu leen leen andiloon suñu wàllum wér gi yaram di leen jox dig daje ci beneen yoon